im bii dama ànd ak moom daaw ñu ne sëñ Tuba daa feeñ fee ca ersan bu ma fàggee ma ne leen toj leen jàkkee yéen a mën a nangam sëñ Tuba dana feeñ ci sobe si sëñ am ku ñëw ne ma biig damaa gis sëñ Saaliw ma ne ko sëñ nekkul picc muy war la wari kër néegu ne mu tàbbi ca nga gis ko guddi gi day jaamu yàlla tënu tanaaw di tàbbi sa néeg bàyyi leen bàyyi leen li ngeen di wax yooyu ay caaxaan la takk photo bi mu dugg ci sa lasoor boo demee ci ci su eh, ilmu sokali sokalosia da nga xam ne fi mu ne dafa fii accès ngay photo yee ka def yow nga di ko xoola ka def yow nekk ci lépp lu araam nga nekk ca di mën a gis lu baax déedéet mënta am di foofu yàgg nga tëdd daa ko jébbalu woon ci man señal yi loo mii ci jàkka ji moo ko mu ñëw ne ma nee na day gis sañ Tuubaa ma ne ko gisu ko de ndax man mii gisuma sëñ Tuubaa ma ne ko day day na day dorogé de bu dee mu ne ma see sëñ bi sans doom di dox ma ne ko day day do day naan dorog buy naan dorog rek tàmbalee gis sañ Tuubaa ak di woote ji mu dem visité visité kii ba fekk ca dorog ba mu ñëw ne ma sëñ bi tuub naa ma ne gone gu la maa ngi gis yàlla eh. maa ngi gis sëñ Tuubaa fàqalub yar tàmbali naa naa naa ni doom <laughs> ah? kon dafa am loo xam ne nii kër gi saa kër te daje nañ fi lu kii lu waxtaan kon ma delluwaat hmm. Jibril hmm. ba ma lay booleeg sëñ Maxtaar boolewu ma la bokk ndey ak baay booba li ma xamoon ci moom moo tax ma boole la ak moom loolee nag maa ngi koy feddali ba tey loolee ca nga ne ndax noon ngaa géntee fu ne te ñëwaat nga indi ko waat ko bii ci këram di ko def kon sant naa la bu baax a baax a mm-hmm. maa ngi lay sant ca loolee te nañ ko jëme kanam sëriñ Moussa maa ngi lay nuyu yaa bokki Malicounda yi ak bokk yi fi teew yëpp yépp mm-hmm. yaa sëriñ papa Papa Ndiaye maa ngi leen di sant bu baax di leen seereel it cant goo ne sant naa ko sëñ Maxtaar ba yàlla amee attee noo ànd ba fii mu ne it mi nga ànd ak man lu mu man it mi ngi ma koy defal te xam ngeen ne man de xam ngeen ne neexuma dara dara xam nga fi mu ne jàpp na ne maa ko jox li mu weddi naa ko weddi mu doy waar fi kanam xam nga kii xam nga dafa mel ni man néew ko tàndal dëgg waaw yàlla nañ fi yàgg ah ngeen xam nañ ne ah néew ko ne yaa defal ma la yàlla la defal defaluma la dëgg la te lu wax nag lu dul waxuma dëgg dëgg googu nag ay naqari nit ñi waaye mooy dëgg de di muuruwaata day ñu di ma wax da ngay am soxla te du faju de ngi di sant bu baax sëriñ Moussa ak bokk yi nga xam ne nañ ci ñoom